salaamaaleykum mbokki géewul salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi fii tey ci géewul ci école bi ñuy wax école Pastef géewul Pastef géewul Art tey taxaw si fii taxawaay boo xam ne tey e, ci li nga xam ne e, jafe-jafe yi nga xam ne géewul Pastef mu ngi koy jànkonteel ñu teew fi fas yeneen taataan kàddu yi nga xam ne ñoo fi nekk e, ñu wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la géewul Pastef di dundee muy école boo xam ne école privée la boo déggee privé mën nga koo jàpp école mais li ci ëpp mooy social kon ñu dugg ci biir taataan kàddu yi nga xam ne ñoo fi nekk ngeen topp Géewul Art TV mu dugg ci biir taataan kàddu yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Géewul Pastef. Euh, donc euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, population Ngumba Géewul ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sargal ñëpp. waaw di wax ñu leen recevoir te ci école privée gi Pastef euh, bi nga xam ne mooy li may expliqué sànq rek fii euh, école Matar Ndiaye bu njëkk ba la woon ñàkk fu ñu dem moo taxoon ñu jël ko fi lañ nekk pour le moment moo abrité école bi waaw donc euh, maa ngi Mbaye Samb ñoo fi nekk Mbaye déclaration euh, mooy déclarant responsable mooy yore loxo euh, maanaam ci loxoom la école bi nekk man dama koy jàppale je suis le surveillant général donc ñu ñoo fi nekk comme personnel ak xëy na ndaw si nga xam ne moo fiy jaar chaque semaine di nettoyer école bi donc loolu mooy personnel école bi donc école la boo xam ne ñeenti classe lañ am troisième mon premier cycle bi second cycle bi amna classe seconde première terminale donc euh, chaque année loolu la def bi sixième année waaw légui nak fi dañ fi de provisoirement di ñaan euh, mu may ñu lu gëna fa école mais pour le moment je suis lañ euh ci situation yi travail. bu leen neexee buñ paree ñu wër donc loolu la woon ma jox mbay sàmb parole bi di nuyu ñi nga xam ne du ñàkk ni daañu seetaan waxtaan wi di ñu waa ngumba yëpp ak képp kuy doomu ngumba ku dëkk nekk feneen bitim réew waa fu mënti doon ñu ngi leen di nuyu gën ci sell nuyu di leen présenté rek jëwul Pastef def nañ ko keroog ci rajo bi tey jii ñu yaakaar ne xëy na bu ñu defee nii nit ñi daañu gën a xam miinanteeg école bi ñu ngi bëgg am ay fan ni ko Souleymane waxee léegi nii initiative wu ay doomi dëkk bi la waaye liñ ci jiitaloon mooy jàppale dimbali parce que ay jàngal kër lañu loolu rek lañu xam bi ñu ñibbisee ñu ne nañ ubbi école privée ñu bari jàpp ci ku nekk joxe sa xalaat waaye ngumba tëdd na noo xam ni nit ñi amagul peut-être culture école privée de telle sorte que euh, c'est un peu compliqué bu njëkk dañ njànjale seen doom yi fii di leen yóbbu ay Kébémer di yóbbu ay Louga di yóbbu feneen ñun ñu xam ne nekk ci njàngaan parce que ñun dañoo njàngaani woon te at potalam ci dëkk yu mag yëpp jàng nañ fa alors moo taxoon ñu ne nañ ubbi école bi école bi ba mu ubbi ba léegi social lay def pratiquement ñi ngànk école bi présidé à sa création ñëpp kenn fayewu ci ñaar dërëm école bi defagul bénéfice gënu ma leen xam ngumba fi lañ judd ñun ñëpp fi lañ yaru xam nañu ku nekk mu yaay kan nit dina ñëw des fois nga wax ko conditions yi lii la lii la lii la ba léegi nii am na ñoo xam ni listeem la yore pour ku bëgg inscrire daaw am na yoo xam weer yoo xam ne fayuñu mais looy def alors ba tax na ñi gën a tax ñu def présentation bi dañ jàpp bu baax a daaw a daaw muy waa Géewul diaspora am na ay élèves fii yoo xam ne dañ jékki-jékki disparaître kenn gisatu leen parce que xëy na ki li doon fayal nekkatu fi nelaw na wala extra rus naa ñëw ñu koy fay ci ay morom mu toog am na ñeen ñoo xam ne am na ñu leen diggaloon dinaa leen fayal at mi yëpp ay jigéen surtout waaw en certain moment gisatuñu leen ndeke kooka génn na ci xam lu xew kaayu kii jara sat moom moo def démarche ba découvrir yooyu yëpp man sax yëguma mu waxtaan ko ak waa Géew diaspora ñoom ñu volonteeru fayal ñoo ñu seen année scolaire ba mu jeex benn exemple jox am na ci kenn xam la doon def du ma tudd tur toog na ay weer jàng ko mais bi ñu ko fayalee taxaw fii kenn ci ñun ñëw fii ku koy ñëw ba fii xobe xobe ñu ne ko il faut ngeen xamante jëleen moo téléphone jom jooju moo ko yóbbu jàng na ba récupéré na peut-être lépp at mi na BFM mais amul moyen donc cas mel noonu am na ñoo xam ne également bon dañuy jékki-jékki dem dootoo leen gis yaay dem wëri leen man kat am nañ problème fay ngay def nga récupéré alors loolu moo nu moo nu jàpp moo tax tey jii gis nga situation bi nu bi nu nekk te amoon nañu départ bu baax far Covid bi ñëw depuis lors élèves yi li ñuy fay sax du fay du du fay professeurs yi mooy loolu donc euh, def nañu benn demande au niveau de la mairie pour terrain depuis cinq ans man feebar naa fi ci diggante bi et cetera attribué fii ay et cetera et cetera keroog laa ko relancé promesse nañ ñu de la vote du budget daañu dégager le terrain comme ça loo am tuuti nga def ko fa nànk-nànk. ndax lan mën nañoo xam euh, li la ñu ci laa jëm ci laa jëm si nii dama doon présenté tableau généralu école bi rek donc fii ci Matar Ndiaye moo fi moo ne ko école bi nag mënu ko loué. pompe ak ndox courant et cetera et cetera ak matériel beeg yu mel noonu fii nii da di xool su ma leen waxee ngeen comparé ak li xew Kébémer di xew Louga dix mille francs ngay inscrire mooy inscription bi chaque mois nga fay dix mille francs mais expérience bi nu am mooy dernier mois bi élèves yi duñ ko fay mukk ñi nga mën a poñe mooy ñi am nekk classe d'examen nga xam ne ñoom dañ fi toog mais ñeneen bu ñu composé par rek laal lañ dem nañ seen yoon. nga am problème nag di fay mois boobu di nga fay location euh, di nga fay ndox di nga fay courant professeurs yi heure yu ñuy jàng il nga fay leen ko ba léegi nii dañu am bor. ba euh, bayu daaw bi moo tax ren on est plus rigoureux booy inscrire da ngay fayaale dernier mois bi comme ça loolu bañatu bañatu noo dal donc loolu mooy inscription yi dix mille francs la mais pour daw élèves yi bañ fay dernier mois bi da ngay fay sa dernier mois léegi chaque fin du mois te. novembre premier octobre mois mois bii nii xam naa fin octobre la ñuy jàng mais duñ ko fay mois d' inscription la fin novembre prospectus yaa ngi ne après ngeen jëlaale ci benn ku nekk jël benn yóbbaale information yi ngeen bëgg ci école bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mi ngi ci waaw donc euh, loolu mooy situation boo demee génnee fii yóbbu sa doom Louga wala Kébémer inscription yi mooy gën a cher nga fay wutal ko fu mu dëkk xam naa kër gi mu nekk et cetera léeg nga am noo def luy mel noonu sa doom juddoo fii jàng fii ba pare dara gënu ko te yàlla ngi nuy suturaal boobu ba léegi euh, amuñu élèves yu bare daaw par exemple en seconde fii nii six la ñu woon dem nañ ba bañ ko jël mais am na ñoo xam ne fi lañ jàngee woon année précédente troisième boo leen jël fu ñu jëm en première sept la ñu woon au cinq la mujj parce que ñii sëy nañu ñii tourné <laughs> en état extra extra bon donc yooyu manque à à gagner la si nga calculer woon budget pour mën a fay professeur day manqué terminal bi laa moo fi tane woon nekkoon nañu au départ vingt élèves mais dix huit ñoo def bac daaw yàlla def na suturaal ak année bi ko jiiti troisième bi cent pour cent la def ren amon nañu 11 candidats 7 yi admi nañu bëf ka bo mëna wax ci la bok ken orienté parce que amul moyen wa euh en première en seconde pardon ñom 6 lañu won yalla def na kenn rek mo suivre mais 6 ci tabarkala dañuy passer de première en terminale amnañu 8 yu admi bac ci 18 alors donc loolu mooy situation générale wu école maintenant problème infrastructure la ñu am maa ngi koy wax léegi Souleymane bu élèves yi yokkoo daañu am problème table ba bu élèves yokkoo fii dina xat il faut au moins nga génn à l'extérieur wuti feneen maa ngi ciy waxtaan ak maire Kero mu ngi proposé bi fooy mais un sori na deuxièmement il faut faire des aménagements là euh, c'est vrai que lycée bi ak moom soriwul tellement mais boo bëggee nekk ci ñaari sit ñaari nit dina xaw a compliqué alors peut-être trouver ci biir dëkk bi fenn fu jege foo xam ne di leen loo xam ne di nga ko mën a def salle de classe ñi ngi xaar yi lu mu joxe pour ñu mën a aviser. ñu ñu gis école bi soo mel ne ci kàddu ci nga waxee mooy social no ci wàllu commune bi waxee eh, ndax ndax tey am na ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi bàyyi xel école bi di ci teg loxo ci jàpp. bu baax jéego yi nga xam ne tey bëgg ngeen école bi bu a à commencer par la mairie parce que ñoom bu de séddalee fonction fourniture école primaire L'idée, li des dañ ñu koy jox démb rek jox deux caisses, deux boîtes deux keesu craie euh, ay big et cetera duñ ko jamais euh, au contraire am a ay bonne volonté damay dem dal ginnaaw année Covid bi élève yëpp bàyyi mu classe d' examen rek bi fi élèves yëpp nekkee li ñu doon joxe fayul professeur bi asmala bu ñëpp demee bàyyi fi classe d' examen yi am ñu ko dégg bon mairie yi defoon na benn geste mais malheureusement aboutirul parce que trésor daf ko rejeté parce que ñoom amul compétence euh, agir ci second cycle ñoom seen compétence primaire la bon ñu daañ ko seetaan nu ñu koy defewaat et cetera mais ku mel ne Modou Mbaye Ndiaye bi mu ko déggee daf nu promettre un million xam naa ni moom tamit am na lu ko dab jamono jooju finalement moom moo déplacé boppam ba seeti Baye Cheikh Fall mi yore finance yi jox ko chèque gu cinq cent mille ça nous a tellement soulagé euh, ñu bind ko benn lettre de remerciement ça nous a permis année boobu ñu fay suñu bor yëpp la ba amuñu problème donc beneen bi moy géwul diaspora bi tax tax ñuy def reportage bi ñom tamit non seulement def nañu loolu ma fi waxoon légui mais yoni nañ fi kenn amna kenn ku ñom ñom ku ñëw ba fi seet condition yi liggéeyee seet lañu liggéey ñun ñun ñu ngi ni bon amna ñu ben photocopieuse dañ ko jënd photocopieuse la en même temps imprimante sama machine la ñuy liggéey ordinateur bi écran bi tour tour légui moom lañu liggéey man maay secrétaire maay lépp kii mooy surveillant général waaw loolu moo fi ci école bi parents yi duñ ko comprendre am na parents d'élèves yoo xam ne comprendre léeg ñu jaar fii enquête mais généralement yow élèves bi rek gis parents d'élèves yi doo leen gis tant que problème amul euh, bu ngeen xoolee procédure nee nañ leen telle date ngeen war a fay fin du mois bala cinq nangam nangam da ngay dem bala vingt ba weer yi bëgg a dee ngay comprendre dàqante parce que xam nga kii doomu diw la peut-être euh, papa ji wala yaay ji day débrouiller rek lijjanti pour ñëw fay et cetera waaw loolu mooy situation école bi. ndax ndax prof nga xam ne ñooy jàngale fii ay doomu jiw lañ wala prof yoo xam ne école bi ngeen leen di yi li ci ëpp mooy prof lycée yi pour second cycle prof lycée yi donc leen fi affecté pour la plupart am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla dañuy rafetlu seen taxawaay parce que euh, mel na ne seen yëf la parce que sonn nañ ci soo si gis suñu résultat yi wax dëgg yàlla ñi fi dëkk également ku mel ne euh, profu troisième yi am na ñoo xam ne fii lañ dëkk ñoom ñoo lay soñ sax léeg-léeg ci ci ci yenn yi bon bi affaire situation boobu amee fii la ñu réunir woo leen ni leen ah école bi kat mel na nii bon problème bi c'est vrai que xëy na li ñuy fay heure bi feneen ñun àggunu fa parce que déjà ñun déjà li ñuy laaj mi ngi tolloog mën-mënu ñu fi indi seen ay doom euh, yéen situation daal mi ngi nii. bu continuer day am problème kenn ci ñoom te fii la dëkk moom daal di proposé ni kon ñu wàññi ñun li ñuy jox parce que heure mille la ñuy fay benn heure. boo jàngalee quatre heures suba mu nekk cinq mille francs mais kenn tontu ko waaw ah, donc ñu ñu bàyyi parce que loolu la ñu waxante woon suñu akulaata loolu la ñu waxante woon metti na mais yàlla suturaal comme ni ko waxee lu mel ne Modou Mbaye Diagne lu mel ne Gueoul Diaspora et cetera jàpp ci bu ñu mën a ñu mën a fay. waaw ñu gis ñu ngi dugg naka la toll ak xam ne tey bu ko euh, a mën a yem ngeen dugg ci bi parents yi waaw euh, moom la waxtaan avant ngeen di ñëw parents yi dañ dul lire processus bi parce que boo xoolee fii euh, fiche d'engagement bi élève bu buy buy inscrire dañ lay jox fiche d'engagement bu sa parent di remplir fiche d'engagement bu sa parent di remplir ñaari exemplaire ñu denc benn nga nga denc benn mais vous a le mois d'octobre, le mois d'inscription. inscription ce kenn ko mais il faut voir ici, c'est un emploi temps par par ñu sur cette base là il a un emploi de temps collège même chose donc def mois novembre la commencé faire fin novembre mais nous, parce que nous simplement nous des alors alors que non non non euh, yooyu y prévoir nañ ko waaw ah, donc problème boobu la am ñu inscrire au compte goutte pour le moment nii xam naa ni ñuy jublu fin du mois ci la ñuy ñëw en masse pour inscrire loolu mooy situation bi donc euh, ñun pare nañu professeur li des également mooy wàllu professeur am na ñoo xam ni yónnee nañ ma par WhatsApp seen emploi temps moom laa bëgg a tiire nii su emploi temps yëpp yembee rek ma defal emploi temps général pour toutes les classes ñu car ele xaar élèves yi pour pour jàng waaw donc def euh, euh, naa waaw waaw léegi am na yoo xam dañ naan école privée la c'est vrai que école privée la mais comme ni nga ko waxee sànq social lañ gën a def man euh, yow am na loo ñu laajul est-ce que ñun ñu ngi fay ñu yore école bi waaw <laughs> c'est-à-dire dañ ñuy dellu marché looy jënd crédit wala yu mel noonu da ngay xëy si huit heures ba quatorze heures ku liggéey ba retraité suñu retraité mën nañ nañu donc du loolu du loolu moo ñu yëkkati quarante mille francs euh, te déjà li ci ëpp souvent di ko dépensé fii di nga soxla benn bâche di nga soxla yow yaa koy jënd parce que mënul wax am na yoo xam mënul xaar yaa yaa yaa yaa koy jënd

waxal nañu daal ba ranguwaat naa donc te kii nee na suma bàyyi mu bàyyi ñu wuti ñeneen te école bi am na fi njëriñ boo génnee ci mbedd mi laaj parent léegi école bi am na fi opportunity, ñi am na ñoo xam ne tey ñu ngi université am na xam dem nañu lycée lañ bu leen jox lu opportunité duñu duñu duñu duñu jàng donc euh, lu ci leen di xaar nit ñi daañu wax ne école privée la c'est privé mais bu may demee ba comprendre xool euh, gis nit ñii kat am nañu utilité ci dëkk bi di def loolu ma la wax léegi bu seddale seen fourniture ba pare lu ñu jox leen école privée euh, di lijjanti pour wutal nu terrain bu nu construire et cetera ça signifie que bon ñun def nañu pratiquement euh, beneen génération muy ñëw kon ni liggéey boobu parce que ni ñu tëdd tëddal kayit yi man maa déclaré responsable

école euh, élémentaire yi def ah waaw <laughs> école élémentaire defal leen ko même inspection jox na leen jox na leen alors donc moom xam na xam na fàttiwu fan la jóge ci corps bii la soxee ko euh, euh, fii la nekkoon instituteur fii la nekkoon surveillant fàttewul loolu fàttewul ni aussi ay doomam ay jarbaatam ay rakkam ñooy jàng alors ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko ñëpp ñaanal yàlla bari fi nag ay morom yu yu war a mën a def ne moom waaw yooyu aussi ñu ngi leen di ñaan moom tey taxaw na nekk exemple waaw géewu diaspora bi maanaam ñu ngi ca biti di daan seen doole mais seen jóg seen bët aussi jógul ci dëkk bi école bi la ñuy mais man ña nga santé ña nga feneen ña nga feneen ña nga feneen ñëpp gis nañ ko waaw ñooñu aussi leen ñaan yàlla bu baax a baax parce que seen teranga mi ngi réagir ci dëkk bi mi ngi bénéficier doomu dëkk bi alors donc voilà la situation ñi nga xam ne si maanaam xamuñ école mhm. voilà yow am nga sa doom mi ngi école pub euh, publique ni ñu tëggee école publique mooy diggante sixième ba te ba troisième may nañ la nga redoubler benn yoon boo redoubler benn yoon nar redoubler waat dañ lay dax loolu moo am second cycle également boo amee benn âge bi également ñu wóor leen boo amee BFM kenn mun la orienté mooy loolu donc école privée moo fi des comme alternative léegi différence bi mooy da ngay fay normalement pour sa doom jàng mais école privée amul grève dégg nga école privée euh, boo amee brevet yaa ak élève ba nekk ci collège ba yéen a yem parce que pour ñu la le seconde li ñu laaj mooy bul age nga am 19 ans bul am vingt ans ou plus li ñu laaj mooy ni nga am ni brevet li ñu laaj mooy ni nga am moyen boo amee yooyu condition yële ñu dugal ñu la ci lañ lay dugal yóbbu ko commission régionale ñu xool orienté la preuve suñu élèves yi remplir critères yi ren ñoom yëpp orienté nañu nii si boo amee bac exactement la même chose bu vous ba bi ñuy doon di commencé même illégal dañu daan boot pour que pour élèves mën a un bac mais depuis 2019, nous école autorisation officielle donc nous présenter présenté ay candidats au même titre que lycée au même titre que collège sunu candidat ay candidat officiel lañu duñu candidat libre donc différence de rue la différence est tout simplement Par exemple, nañu faut que nous Nous Nous chance de jàng mais dañuy fay parce que nous di euh, c'est tout situation donc euh, voilà la situation. Maintenant on a des besoins je vais en profiter les besoins c'est le matériel avec lequel nous travaillons mon secrétaire. nous on sacrifie ñun ñooy def liggéeyu secrétaire yëpp lépp luy kayit fii ñuy def man maa koy bind maa koy tàppe maa koy et machine bi wax naa jël nañ benn euh, imprimante euh, photocopie en même temps mais mi ngi commencé sonn six parce que lépp moo koy def machine machine boobu alors y a peut matériel d'autres euh, matériels peut bu ñu amoon ordinateur boo xam ne école ko moom mu denc mi war mais lépp sama ordinateur lañ koy denc wala ñu def ko ci disque dur denc ko parce que machine bu mën naa paan mën naa mën naa nu mu tuddati ah euh, réy na pour ñun pour le moment euh, tout le matériel daal la école di soxla waaw lu ñu ci mën a am incha allah ak ku mu ci mën a jàppale d'ailleurs yow ay di fàtte naa ko bi fi ñëwee ñëw na fi lan nan leen mën a jàppale ma ne ko boobu école privée école la lépp cité wu ma dara lépp lu ngeen yaakaar ni mën nañ jàppale mën mën ngeen mën ngeen ci jàppale voilà def naa ni daal loolu bu fekkee amatul leen question. waaw bon dernier bi mooy sant leen déjà opportunité bi ngeen def ñu adressé wu de ak euh, waa Géoul euh, sant leen ñoom tamit également confiance bi ñu am ci ñun ba ba ñuy indil seen ay doom. di leen gën a ñaan peut-être ñu gën a jàpp parce que liggéey bi fii la mais liggéey bi ci kër ga la doo jëlee sa doom yóbbu ko école privée di investi moom di ci def sa xaalis bëgg nga loolu jural la ëllëg dara kon ni nga ko doon surveiller di ko topp bi mu nekk école publique doon nga war def la même chose parce que xale xale xale dong la mun na wax ni bon fii damay fay sama xaalis donc lu ma neex alors que c'est pas même règle yi réussir comme ñun autorisé nañu léegi même règle <laughs> yi réussir yeneen école publique yi moo ñuy réussir sanction wala problème yooyu mën a am ak ministère ñun moom lañu mën a am ak ministère alors donc ñu tàggat leen ci loolu war ni leen ni discipline ba nekk fële moo nekk fii assiduité bi maanaam teew bi nga war di teew toujours fële moom nga war di teew toujours fii respect bi nga amal sa professeur yi fële parce que ñoom ngay fekkaat fii même respect ngay am ñoom alors euh, boo ko defee rek yàlla mën na cee def sutura ba li nga fi wut si sunu borom jox la kon daal euh, école tijji na ñi ngi leen di xaar bëgguñu également lycée rawlu bëgguñu collège rawlu commencé gunu pratiquement parce que comme c'est les mêmes professeur c'est le même programme ñoom bu nu commencé tardé fii déjà dina sonal professeur bi dana leen sonal ñoom parce que il ñu dàqee parce que devoir yi ñuy def ñoom au niveau départemental ci lañ bokk waaw c'est des devoirs harmonisés alors bu lañ gars yi rawee nag day daal di compliqué waaw kon daal ñu ngi wax loolu parents d'élèves yi ñu jàpp nañ ci bu baax nañ ñu dimbali pour ñu mën a dimbali seen i doom dimbali leen ñoom seen bopp waaw fekk Souleymane amul lu mu ci yor waaw fekk bi ma si yokk rek mooy xëy na ñu wax wax waxoon naa ko si AG ba sax bon moyens daal bu ñu ci mën a jàppale moom parce que école ay moyens koy doxal ay moyens koy doxal bon déjà moyens humains yi maanaam moom la ñoo fi nag ñooy bi ñoo ñooy yore école ak euh, ñuy jàngale waaw waaye nag am na yeneen moyens moyens matériels

ñu ngi góor góorgóorlu macha allah sant yàlla parce que résultat yaa ngi ñëw résultat yaa ngi ñëw loolu ñu ci sant yàlla bu baax waaye wax dëgg yàlla bu ñu sañoon daal gars yi jàpp ci école bi jàpp ci école bi man nag du Bey ak tous les fils de Géoul sans exclusive ak ku képp koo xam ne Géoul nga cosaanoo am nga wàll ci école bi war nañ ci jàpp nest tudd nañu amoon liggéey tudd nañu ngay jegewul diaspora waaye nag am na ñu des ah alors ñooñu ñëpp ñu ngi leen woo ñu jàpp ci école bi parce que xale yi ñoo leen bokk jur n'est-ce pas waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kon euh, mbokki géewul euh, lii lañ leen jëloon fi nga xam ne moom mooy euh, école géewul Pastef muy école boo xam ne comme ni ko euh, Samb waxee ni ko doyen waxee muy école boo xam ne daanaka social moo fi ëpp ñoom ñi fi nekk daanaka fay leen dara ay doomu géewul ñoo fi nekk di jàpp ñuy woo képp koo xam ne rek yaa ngi nekk ci diaspora bi yaa ngi nekk ci géewul ak foo mën a nekk rek àdduna bi rek nga ñëw teew jàpp ci école bi ndax doomi géewul ñoo fi nekk euh, seen doom ñoo fi nekk seen i rakk ñoo fi nekk seeni mag ñoo fi nekk ngeen jàppale leen ci njàng mi ndax euh, li fi war a li fi manqué pour ñu doxal kéem yi bari na lool ñuy woo képp koo xam ne rek bon volonté nga rek daan def lu baax ci géewul rek nga fàttaliku li nga xam ne moom mooy géewul passé nekk fii ci géewul euh, muy école boo xam ne tey école privée la lépp loo xam ne tey ndimbal la ci école bi ci élèves yi rek ngeen mën cee jàpp géewul aar TV ñoom ñoo jël si woon nekkoon fii jël si woon li ngeen xam ne tey moom lañ doon taatam fii ci géew ci géewul passé kon ñu ngi leen di jox dig daja benn yoon incha allah jërë ngeen jëf